juróom benn fukk ak ñett ñun suñu aaja fajoor gu nga ne yàlla kenn ay Mouhamed doomu Abdoulaye yow te yow yow teg ñoo dimbali te kenn gëma ko woon kon mënumaa wax loo xam ni tey ci àdduna ñëpp ànd ak man cent pour cent am na ñoo xam ni bugguñu guy gi chaque jour di bëri dimanche bugguñu guy gi di bëri am ndam neel benn waaye waaye lu yonent yàlla musa amul woon lu amoon ci doomu aadama yi ko am mais waaye loolu yàlla na ko yàlla mosal ci lamb doomu aadama yi mën ko yow lu ma amul mënoo ko am. loolu dëgg la mais guy gi. loo mën a dégg rek Fadam. waaw tonton balaa ñuy dugal balaa ñuy dugal far euh, Forza. Euh, li may wax rek ku bokk ci gétt mi naan ci meew mi. Hmm. te wax naa ni live bi mi ngi daw ci sa YouTube direct. donc ñi nga xam ni actuellement ñu ngi ñuy suivre ci YouTube direct bi cent quatre-vingt-sept personnes ñoo ngi fa. donc ku ci mel ni Aïssa mu Serigne Babacar ñu ngi koy siyaar. Daabo Mamadou ah. Adis Diop Baara ñoom ñëpp ci nga xam ñu ngi ci YouTube bi. ñu ngi leen di mais mais mais guy gi. tonton guy a waaw. Forza ñu ngi lay nuyu di la ñaanal jàmm. yaakaar naa ne ci la. waaw Fadam maa ngi leen di ziar. mais tey sa yaram dafa tàng de tey dama la gisee nii dafa mel sa yaram dafa tàng de. mais xam sama mbokk mbër yi maa ngi gis muy wër combat rek te moom moom sama sama sama xarit la. waaw. muy wër combat boobu ba léegi mënu ko am. waaw. te xam naa ne yaram baa ngi xasal sama maa gis mu def yaram leen di tuba rek di sax. waaw wallaahi wallaahi wallaahi wallaahi yàlla la ko. léegi kay lii gën a gaaw ma koy nuyu guy gi ma lay bëggee. waaw Forza yooyu ñu ngi lay fay bu baax di la jox sa wàccuwaay di la bëggee. fi mu rek laa koy yombalal. waaw. mooy que Forza. guy gi xam nga combat du ko dàq. Mm-hmm. combat du ko dàq. waaw. Ah. te lu raisonnable la. Mm-hmm. raisonnable la. waaw ndax làmb moom. Mm-hmm. ndax wax ne kii ak Forza ñoo war a bëre ñu ne noonu noonu làmb ji nangam ak nangam ak nangam Forza moom ñu mu war a bëreel Sénégal nga xam ne ne boobu ba léegi gars yi ñooy wiiri te guy ji moom xam naa doon na mbër boo xam ne mu bëre Forza dina doon combat bu neex macha allah. Forza foofu nga nekk am ku weex nit mën a jàkkaarloo normal man taxoon. ndax Forza. ah Forza day maye tànk te guy gi day yanu eh eh Forza dégg lu guy gi wax. lan la guy wax. nee na Forza day. non da ngay déglu non déglul déglul déglul non déglul Forza dani. waaw. guy gi guy gi Forza lamb ji di ko dàq. ma ne ko ndax te Forza day maye tànk te guy gi day yanu non guy gi andul sama tànk. pourtant mu teg tànkam guy gi antalu ko. lu ndax combat Forza guy gi. waaw. man maay man may ñëw. maay dóor maay fekki maay bëre maay daan maay ñibbi ndànk ba pare gunge ko. guy gi du fa def dara loo xam ne dégg ngeen maam si. ko ma jël. <laughs> loolu dinaa jël kay. parce que tànk ba ngay laal laa xam ne doo ko laal. parce que du ma la may ndax fi mu toll sama làmb du ma si yoote dara. waaw mais dama xam moo tax ma ne du ma la bàyyi nga si yegg sax parce que la ma war a def laay def te xam gis nga yi may def jamono yi yëpp ñëw def li may def dem ñibbi. te guy gi sincèrement parlé nag entre parenthèses nu sama combat ak yow combat bu extraordinaire la. wallahi boo xam ne la. wallahi li may lekk wallahi bañu ma wallahi combat bu mais mais combat bu jaadu Forza guy gi nekk. waaw guy gi nekk fii di laaj combat te Forza nekk fii ñu gis ne Forza. waaw moo lamb gis ne Forza nekk na daanaan ci lamb nekk ci écurie bu mag bi Amadou Kati Diop di ko ëmb ko indi. Forza tey jii. waaw combat guy gi taxawoon. ndax Forza bu ñu lañ daan gis ci lamb ci Forza day yokk wala ban Forza la gis. mais Forza moom li muy def du si wàññi dara day toujours. yokkulal lu mu yokk lu mu li muy def du si wàññi dara day yokk toujours muy arbitre bi sifflé mu dox ci kawam du daan dem ñibbi loolu rek lay def. non Forza ñu ne gaa doon mu tudd euh, kii euh, oh, oh, Sakar. Faram de moo ci ma mbër mu jóge koy menacé no de non Forza deux hommes de ferel comme ni nga ko waxee ama lamb li dafa neex bu ngeen di waxante non mais daw teewul na ngeen bëre non xaar xaar xaar rek teewul na ngeen bëre comme Eumeu Sène ni mu duggee léegi non teewul teewul man maa bëggul communication bu dëgër ak ay bër parce que ñun ñoo war a joxe bon exemple ci supporters yi ak ñeneen tey mag Forza mënoon nañoo yàlla tere ñu waxante wax ñu ñaaw ñu xam ne ci duñ bëre mën nañoo toog kenn ko ne naan sa papa ba mu demee muy combat bi dàq ci combat yi wax bu ñaaw taxul muy dëgër loolu laa la wax. waaw mais man fi ma lay laaj fi ma lay laaj guy gi yow yaa taxaw fii sànq ne combat bu seere nga bëgg combat bu tàng jër nga bëgg. te Forza day xeex day dox ci kaw mbër day bëre. bu dee rek lu sedd ngay wër bàyyi fi Forza. mooy lan. Mhm. Eumeu dama ko permettre comme ni ma ko toppee ni la Forza amee droit top mais Eumeu dama ko permettre. eh eh guigé eh guigé eh guigé man top mal de. non boo déggee lamba moo logique. Forza guigé wara war béré wa xaru bëre. la rek. non dama lay expliquer rek tay gi tay tay gi tay tey non tay gi tay mais lay expliquer tay gi tay man dama bokk ci mbër yi xamne dañuy gis mbër mo xamne da fay def lu bari daaru ben yow tak ñoo non non man dama xamne ne nga te yag nga bëree neexal nga fi bes du deug te guy gi jàmbaar nga du dëgg man ñoom jàmbaar gi ma gis ci yow ak dëgg gi ma gis ci yow ne kii moom dama koy dem dama koy man maa koy dëkkal sama bopp ñu bari parce que yàgg nañ di waxtaan du dëgg. Forza man dem naa dem naa yóbbu Ablaye Wade ah, ma ko ko ba nga yóbboo ba ma koy yóbboo boobu boobu yaa ngi nekk xale ngay xatraayu ma ne booy bi génnee kon yaa ngi doog a ñëw kon defe naa. waaw kon nag sama combat ak yow du moom naa ko waroon laaj mais comme que maa la ko laaj na la ñu bëre parce que dafa bëgg lu yomb. Forza. Mhm. Forza laa boo xam ni ci communication mbër ci laay sukkandiku wax naa ko sax wax naa ku ma éviter man bëgg mbër bi may waxal. bu ñu demee ba suñu taxaw mën na tàng mais euh, gis nga communication dafa am lu muy def ci suñu supporter. Mhm. dafa am lu muy def tamit ci làmb fi mu toll. la fi laaj na communication bu aw yoon Forza bu ñu waree bëri comme ni ma la wax rek Eumeu Sène eh, guy nga bàyyi waree bëri nag kañ bëri nag bàyyi bu waree bëri jëlal combat bi la ma la wax. déclaré woon na pare nga pour bëri ak Forza par Forza pare na pour bëri ak yow. combat bi gars yi dox ko nga jël combat bi ñu bëri. wala yow su ma daal Ablaye Wade sa bi ngay xatraay na xanaa métti la woon. ba may jooy ba may jooy jooy mu ngi noonu Sénégal xam nañ ne mbër bu yaru nga Sénégal xam na ne man mbër boo xam ne du ma andi violence ci làmb du dëgg. bu xam nañ xamante nañ si loolu ba pare. mais du yàgg ba ñu waxante lu ñaaw mais l' essentiel mooy combat bi jël ko bàyyil baab yeeg yooyu yaa ma du ma nangu lool de dama bëgg nga jël combat bi. léegi Forza waaw eh, bàyyil ay Pape Mayel ak yooyu gënal Pape si biir géew bi. léegi Kolda day neutre ndax na day neutre rek mais moom lépp métti woon yow daal jëlal combat bi léegi dañu bëgg tuuti. ñu dellu si amateur tuuti parce que. Hmm. gars yi ñu ngi naan combat bu neex la. dañu bëggoon Forza ñëwaatul ñu tuuti rek fàttali ñu waatan palmarèsam ndax mën nañ xamaat palmarèsu Forza. waaw sama palmarès mën naa si ñëw tuuti rek. Hmm. mais sama palmarèsu Forza mooy palmarès boo xam ne. mbër yi fi mbër yi fi bañ a bëreel rek laay bëreel chaque jour. Mhm, moo am solo waaw man mën naa ñëw si quatre combats yi mu mujjee bëri rek. Mhm. super étoile. Mhm. l'an deux mille. Abdou Diouf. Pakala. mooy quatre combats yi mu mujjee bëri. yi xam ne dañ fi nekkoon te ak Xaadim Njaay deux mu si boolee muy Jones. muy combat yi mu mujjee bëri. gars yi kan nanguwul bëreeg ñooñu man bëreeg combat yi fi gën a metti man combat yi gars yi télé yëpp maa koy jël chaque jour tam nañu bàyyee guy gi nii mu toog nii bëgg a somewaat man ma bëgg kaa jëlaat tamit aussi. am nañu bind dix combats dix victoires euh, deux défaites. waaw. da ngay dëggal loolu. la. guy gi dégg nga boobu noonu est-ce que du logique yow à guy gi sa palmarès. yaa ngi ci ñaata combat. 10 combat. 10 10 combat la def deux défaites su guy gi. man sama combat boo koy lim nyata sama suba doo fi jóge de. ñaata combat ñaata combat la nombre de victoire. non loolu sox pour ma bëri force loolu soxlawul mais dafa bëri de dafa bëri de wër na yàlla dafa bëri trop parce que man chaque dimanche dama naan bëri sëñ Mor Niang chaque dimanche la daan non arène arène ñaata victoire la guy gi am arène rek. moom laa la non dafa bëri dafa bëri de man arène àll bi àll bi bëri naa cinq arène àll bi benn bi laa daan muy muy Matar Diouf men Sakkan xam nga ki ma wax business hmm. yëpp man maa daan njaaxum njaaxum maa ngi koy maa ngañ jaañ oh, mooy man dama bëri spécial bëri grand combat man grand combat man benn spécial benn spécial laa bëri grand combat mais Forza yow bu dul dara da xool guy gi gis li mu bëree jàngat ko xam ni kii bu ngeen bëree du ngeen ci xam-xam nga wala ci xeex nga ko teg. xamoo làmb xamoo làmb xamoo làmb mbëri mbëri caabadi kat dañuy xool man li ma li tax ma bëgg a jël guy gi mooy que toog naa xam naa ne kenn duma jël moom ma gis njàmbaat ci moom peut-être que su ma ko dëkkee dina nangoo bëri man loolu rek tax ma bëgg a jël. mais xam naa ne waxee suñu borom moom. argument yi nga am pour ci lan nga ko teg sa gëm-gëm da nga koo dàq bëri wala da nga ko dàq xeex. non bu dee côté bëri la xam nga bëri kenn daaxoo kenn ku ci nekk da nga may maneen guy gi am na maneen boo déggee ñu naan simpi guy gi am na maneen du d' accord ma Forza déedéet déedéet. bu déedéet déedéet bañ naa bañ naa. Forza man damaa bëgg nga wax ma lu leer. Forza ji mii. Forza ku mu taxaw ne la maa la mën yow yaa ko dàq bëre wala yaa ko dàq xeex. Toldo. non maa koy dàq bëre maa koy dàq xeex mais ndam yàllaa ko yor. waaw non Toldo. waaw loolu waaw loolu loolu loolu affaire loolu suñu borom moo fi ne mais sa gëm-gëm yow. non Toldo waaw sama gëm-gëm xam naa ne maa ko dàq bëre bu dee doole maa ko ëpp bu dee xeex maa ko dàq xeex mais nag guy gi daanaan la jàmbaar la ndam yëpp suñu borom la. moom mooy boo ko nee mu jox ko. xeex ak Ama Baldé xeex ak Boy yow ñeme ngaa taxaw xeex ak guy di Forza. non guy gi xam nga dafa ko xaw a guy daal la jël combat bi guy gi daal la bi non guy gi xam na ne du xeex ak Forza. guy gi xam na ne xalaat ne est-ce que jël combat bi. est-ce que dina dëggal boo xam man pare naa Forza bu ñu ko doxee dinaa ko jël. Forza li ma bëgg dégg dégguma ko de ma ma répété waat question bàyyil guy gi après Fadam ñëw dama ni Forza man yow laay waxaat en personne en tant qu'amateur dama ni. waaw guy gi mi taxaw xeex ak Zos xeex ak Ama Baldé xeex Boy Niang xeex ak Tapha Tine ndax Forza miñ naan loxo yi dafa nga xatti bu arbitre bi sifflé ñemee ngaa samp jaaga jàpp guy gi dóor ko ba mu tëdd suuf. lenn laa la bëgg wax mu gën a leer. Hmm. moom mi toog ak ñi mu doon xeexal ñooñu ñëpp kenn ñi moo ci xeex ak Forza loolu c'est sûr. ñoom ñëpp bu ñu leen boolee nga boole leen ci benn géew duma leen. ñoom ñooñu ñëpp ñi nga lim noonu ak moom ñoom ñi ma ñu taxaw xeex ak man. guy gi. waaw. ginnaaw la wala dara loolu moom xam kenn ku ne tamit comme ni nga wax léegi li ma wax ci Eumeu Sène rek kenn ku ne ak ni ngay waxee ak ñoo bëgg a bëre rek mais nekk nit ki man moom man ci ba ba may bàyyi bëre nit duma duma. ba ba may bàyyi hmm? bëre sama morom góor duma duma. Hmm? wallaahi duma duma. man kay buma la yobul ardo duñu kuy gi moy faju ji boo ko yóbbul ardo mom dula yobul ardo suma la yobul ardo duñu kuy gi moy faju ji guy gi eh guy gi dama bëgg lool sax man musuma dem ardo man dafa bëgg sax ko ba yobul ardo ben yoon ma ñam ko ah non farda farda dama ko ni No, dama ko ni sama morom ba tey waaw no si dama dégg na li nga dégg naa sa moromu góor dula yobul ardo yow yaa koy yóbbu ardo voilà ma ne man damaa nam ma ardo parce que mosuma ko xam xaw ma ardo nu mu mel dama bëgg ñamal nga ñamal ma ardo yow loolu laa bëgg guy gi parce que yaa fay ñëw boite dama bëgg nga yóbbu ma ardo mu xam lan mooy ardo mais guy gi guy gi ah guy gi waaw ah, ah. guy gi Forza mi waaw ndax guy gi bëreeg Forza arrangé na ko comme lan ndax guy gi damaa gis Forza bu ñëwee ci làmb du arrièreal mbër damaa gis na Forza bu ñëwee ci làmb day ñëw def li ko daal di ñibbi. Hmm. te guy gi da combat bu tàgg nga bëgg bi muy débuté la. te mi da delloo ci ndax bu la promoteur yi sa diggante forza pour affronter forza. non ñi ñi ñi nga doon wax naan plan A ak plan B plan D forza moom mooy B moom mooy B mais Eumeu Sène mooy A bi man maa ngi ci Eumeu dool nii bu demee ba mu kale bu munul nekk Forza mooy B bi parce que ñoom ñëpp moo a sut palmarès kon côté bu wax naa ko dama demee ba mu ba mu des ba mu des ba mu des dara lu dugg mooy mooy B mais man pour l'instant moom Eumeu Sène laay entraîné la moom laay defal lépp di ko xaar di ko déglu bu fekkee nag dem naa ba mu kale Forza mooy B bi. mais guy gi est que est que man am nekkuñu doute boobu moo nekk sa bopp ci Forza. mooy ban. dañu gis ni sànq maa ngi lim ñi nga taxaw xeex ak ñoom. waaye suñu borom def na ni amuloo ci ndam par exemple bi nga xeexee ak Boy amuloo ci ndam bi nga xeexee ak Tapha Tine jëlewoo ci ndam mais tey ñaari combat yu sox yooyu nga xam bi nga ko xeexee da nga koo ñàkk nga gis Forza ni mu waxee ci làmb est-ce que doo am du tuuti ci xeex ak Forza moo tax Fadam ne est-ce que ñeme nga bëreeg moom. tool tool tool doo da ngay jël bi may bëreeg Boy Niang bi ma indi ak ni ma meloon. benn mm, ak léegi da nga koy jël bi may bëri tafatin xoolal forme bi ma indi ak prothèse dent keroog laa ko njëkk a sax prothèse dent boo xam ne toll na ni bopp la de bi tel prothèse dent bu rëy keroog bi ma ko saxee damaa mënu moon souffler sama benn booy naan ma dima nax naan ma bu waddee minute bu ne dix mille la boo seetloo maag tafatin biñ bëree ba bëree ba bëree def na lu ne biñ bëree ba bëree ba bëree ba mu def lu ne man maa dem jox ko faar gi ne ko jaaral foofu pour nga parce que boobu mënutuma soufflé boobu sonn parce que boobu indiwuma dara ci stade mais xoolal bi ma bi ma ñëwee sama combat bi xam ne athlète la athlète yi ma yi ma indi athlète muy ama neex muy bazoka muy ama balde muy nees mu ñëw nekk athlète dama lay bëraloo xeex loolu ba nga sonn mais pourtant pourtant ko bàyyi muy nekk fii xam guy moom xam na ne ñi mu fi lim noonu yëpp ak Forza c'est diamétralement opposé du benn ci làmb du ci doyoo du ci bëree du ci xeex man lenn laa bëgg moom mu dëggal moom ci loolu parce que làmb làmb comme que nag ne wax ji doo bëgg mu bëri jëf ji nag li koy ëppal mooy que nga nga ne gars yi parce que yaa ngi dégg Eumeu Sène ni mu waxee Eumeu Sène dégg nga ko bu dëgg te ñoom ci bëri yàlla suturaale ba génn ci ñoom ñooñu amatul amatul amatul lu ñu wax te foofu la làmb toll. ñi war a dañuy bëri rek ñenn ñi ba dootuñu amati fi jaar ñu ñëw taxaw jàkkaarloog yow nangul combat bi gars yi dox ko ñu bëri ki la gañ ku yàlla ndam ku yàlla jox ndam li mu xam ne moom la mu jeex tak du dëgg. mais Toldo. Forza Forza. doomu dàngu la ngi toj. Forza. Forza. Hmm. Forza yow mbër nga boo xam ni. Hmm. mbër nga boo xam ni yow waroo sax. naan nit nangul combat bi yow mbeur nga mbeur bobu yow ya wara taxaw rek ñu la yaa diw di nga do beure parce que tay bi ngay nek champion guuy gi nekul champion nel ben bi nga dem équipe nationale defana dem nga équipe nationale guuy guy gi demul équipe nationale tay lamb lo taxaw beure ma togu tooguma beure ma tamit lamb dafa am logique tay mu hmm. nañu bokk di waxtaan rek nga ni guuy gi kat moo guy gi forza combat bu neex la waxtaan mais yow wolo sax taxaw na guuy gi jël combat non non day melni yow kon dag may jóg wala nga bëgg non non lamb yow liñ ci def fi ñu ci toll fi ñu ci àgg sa dayaay say combat mënul gaaw parce que nit loolu yëpp day dem ci ay nit boobu nga kenn nangul kenn nattaloo sa champion man ba ñu mën a du ma bëri Forza mais li ma wax léegi dama ko ne ñaari ñooñu Eumeu Sène bu plat kii bi di am Forza moom mooy nekk plat kii bi nu ñu koy waxee plat B loolu koy loolu koy guy gi guy gi d'accord na mais nag am naa droit topp Eumeu Seen ñe- baal ma rek man sañ Assane Ndiaye promoteur maa ngi lay nuyu di la siyaar lu baree bari au parleur laa la def ndax yab naa la comme ni ma yabee sama yeneen grand frère yi uh-huh. dañu nekk ci live bi ak Fadam 2 ak Guy gi ak Forza euh, ñu tëkkoonte fi ñoom ñaar amateurs yi di leen dégg euh, ma bàyyi leen ñu nuyoo <laughs> ma ni dañu nekk ci live bi nekk fi ak Forza nekk fi ak Guy gi Fadam 2 mi ngi toog ñoom ñaar ñu tëkkoonte fi bëggante ñoom ñaar ñëpp kenn bañu sa moroom ñu gis génn nga ci démb ci journée bi ñu lay félicité xam ne yaa ngi préparé waat beneen journée. te yaakaar naa combat boo xamante si ñaari mbër yi bëggante nañ di yàqoo ci yow. waaw combat bu neexoon nag mooy dëgg la grand bi dëgg la ndeysaan. waaw maa ngi koy baax Forza aussi man mu jox cër la ñoo dëkk Medina. Mhm. bu ma romb day day jàdd ñëw nañu ko. Mhm. maa leen di bëgg bu baax a baax combat bu neex la nag. Mhm. waaw mais wax dëgg yàlla moom pare wu pare wu ma ndax combat boobu sponsor moo koy dëgg daawuma ko. sponsor amatul ci la.